aousu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim barkeb Sëriñ Tuubaa tey nag noo ngi dikk dikkaat ak yéen ci loo xam ne digoon nanu leen ko waxoon ne daan leen ko toppatool ba waxtaan ci ak yéen ci kem nañ ko xamee te mu leer loola moo di mbirum teenub Sëriñ Tuubaa bi ñuy wax aynu rahmati ci Tuubaa te muy teen bi nga xam ne moom la a Cheikh Abdoulahi Ahad defaraat yokk ndox mi defar ko comme na nga xam ne noonu la ñu defare biiru zam-zam ca makkatal mukarrama boo demee makka gis nañu defaree foofa dikk Tuubaa gis ni ñu defare fii da nga doo leen xàmmee ci zahir si ndax amit baatin ba itam noonu la demee ci biir loolu mooy lu mu wax dana dana leer ci biir waxtaan wi incha allah moom teen boobu nag lii ma la ci bëgg a wax maa ngi ko jële ci sama waajur sëriñ Xamsatu daanaa dégg mu di ko wax leerluwaat naa ko it ci bii bii ma la koy bëgg a wax leerluwaat naa ko ci ay mag ci sama mag yi nga xam ne ba tey noo bokkoon sëriñ Xamsatu te ñu daan teewee nettali ba ñoom it leerluwaat naa ci ñoom lii nga xam ne lii moom laa lay bëgg a waxtaane ra bokk na ci ñi nga xam ne leeral nañ ma ca leer leer yooyu alxaaji sëriñ Meewlu Jaxate mi nga xam ne moom la ñu wooyee sëriñ Jaxate di doomu sëñ Amsatu moo ko sëñ Abdoulaye ñoo bokk ndey ak baay léegi teen bi sëriñ Touba moo ko njëkk a duppi sëriñ Touba moo waaxu ba ci barab boobu yi mu njëkk koo duppil boppam moo ko rëdd moo ci njëkk a gas itam loolu su fekkonte ne ci la ñu yemoon rek loolu doy na barkeeloo waaye itam yemu ca mu daal di joxe ndigal nag ne nañu ko gas am na lu ma ci sama borom dig saa yu bënnee gas gi itam siiwee na ne sëriñ Ibrahima Sarr mooy ki ko gas waaye nag lii ma lay bëgg a wax mooy li nga xam ne moom laa ci xam loola moo di bi ko sëriñ bi diglee dafa wowoon mag ñi digal leen ne leen na ngeen ko gas mag ñi it àndandoo seet nañu koy gase noona moo di dañ ko daa ay ay loo maanaam diggante Cheikh Ibrahima Sarr ak ña nga xam ne ñoom la tollooloon jamono ci seen diggante ak Serigne Touba ñooñee dañ daan def at mu jot wala weer wu jot kenn ku nekk indi sa mbooloo indi say jëmutukaay nga gas saa yoo bàyyee beneen cheikh dikk moom itam gas ñu di ko ay ayloo gas gi nga xam ne ay ayloo nañ ko dir bu yàgg waaye nag li nga xam ne moo ciy tawféexi Cheikh Ibrahima Sarr moo di bi nga xamee ne Cheikh Ibrahima Sarr aaye na di gas ci ay loxoom ci la teen bi bënnee loolu moo ci di ak jagleem goo xam ne gii gu doyog jagle la léegi nag bi nga xamee ne nag teen bi bënnee na ci loxoy Cheikh Ibrahima Sarr sëriñ bi nag te jamono yooyu ñuy bënn teen bi danaa del siwaat moo wax la ne la teen bi jamono yi ko sëriñ biy digle mooy jamono yi nga xamee ne bii ne booba lay door a sañc Tuubaa du caagee ni dafa dem ba njaareem door koo sañc door koo duppi suli déedéet dafa nekk Tuubaa sañc ko dal di duppi teen bi dal di digle ñu gas ko ñu di ko gas bi sëriñ bi dara dem ci géej bi teen bi bënn na teen bi bënn na bi mu bënnee nag sëriñ bi nangootu la naan menn ndox mu dul ndox mi nga xam ne mooy ndoxum teen bi fu mu mën a nekk ci ndoxam teen bi li ñuy jël di ko yët mu di ca naan ba bi nga xamee ne nag sëriñ bi dem na ci géej gi danaa def si waat it ma wax la ne la nagoo naa ci mag ñi samay mag ñu wax ne sëriñ xamsatu wax na ne sëriñ bi bi nga xamee ne teen bi bënn na sëriñ tubaa ci boppam dem na fa sotti na ci ay saakoy suukar yu bari ca jamonoy bënn ga ca biir teen ba dal di cay ñaan dal koy def teenu barkeelu di ko naan yooyu danaa ci dikk ci kanam jamono yu ma lay indil mbirum xasida yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa bind na ko ci bi teen bi bënnee nag waaye mu bënn ci loxoy Cheikh Ibrahima Sarr ba bi nga xamee ne nag sëriñ bi dem na ci géej gi ñu bàyyi fi teen bi ñi nekk waa Tuubaa di ko jëfandikoo waaye nag teen bi am na yu muy bañ yi nga xam ne yi moom lay bañ moo di saa yoo xamee ni bii ne jigéen taxaw na ci pindi teen bi teen bi daaneel saa yoo xamee ni bii ne it ndox mi laalal nañ ko saabu wa illaa ñu saabu laal ndox ma nekk ci biir teen ba teen bi dina daaneel kon teen bi dafa laab mën a laabal ci dëgg-dëggi laab ak dëgg-dëggi mën a laabal ndax teen bi ci biir xasida gi danaa ci ñëw waaye da ko kon loolu dana la gën a leer kon teen bi bañ na sobe bañ na it lépp loo xam ne lii lislaam daf koy bañ ndax bëggul jigéen jege ko bëggul it saabu laal ca sàkkantumaa nag sobe kon li ñu xam ne teen bi su ko masaa def daaneel rek mooy yooyu ma la wax ba mu ko defee nag teen bi nekk na noonu doxe noonu yi ba bi nga xamee ne sëriñ bi dem na ci géej gi ba ñibbisi bi mu ñibbisee wax nañu ne ci jamono yooyu sëriñ Masamba nekkoon na di koo xam ne kii ku doon toppatoo teen bi la ba tur yi ma lay bëgg a wax sax wax nañu ne ay nitam la woon yoo xam ne moo leen digaloon ñu sax fa teen ba bàyyi leen fa ñuy def fa seeni nekk ak seeni kër di ko toppatoo ku ñuy wax Madun Faal Madun Faal moom yi maanaam Madu Faal Madu Faal moom yi mooy bàyyi ku ñuy wax Abdul Wahab Faal kon sëriñ Madu Faal moom yi ak ku ñuy wax sëriñ Mbay Jenn ñoom ñaar ñooñu sëriñ Masamba moo leen waxoon ne na ngeen toog fi teen bi toog googu itam ci jamono yooyu ñu fi nekk dañu daan def saa yoo xamee ni bii ne ndaw jóge na njaareem dikk ñoom ñooy ñoo koy duyal ay xandeem ah toppatoo ko ba mu yenu ba dem waaw ndaxte wax naa leen ne leen sëriñ bi fu masaa nekk ci ndoxam teen bi lay nangoo naan bi nga xamee ne nag yàlla dogal na sëriñ bi nekk njaareem dafa sakkoon ay ndaw yoo xam ne ñoo daan jóge njaareem yore ay xandi xandi yooyee xandi isaas la woon ci cosaan xandi yooyee daana yor daana mën a def lu toll ci fukki litre ak juróom-ñett 18 litres moom la daan def ñu nekkoon nag mag ñoo xam ne ñu amoon kattan lañu ci jamono yooye ñooñu nit bokkuñu ak suñu suñu nit yi léegi yii la ñu mënoon ñii mënatuñu ko ñooñu nag dañu daan daaj ak kees boog dénk yemale ko ci xandi yi dal di jël ñaari xandi tegale ci biir kees gi sàkk nuñ leen daaje ba duñ yëngutu dal di yenu dal di ñëw Touba suñu dikkee ñu duy xandi yi diggante Touba it ak Njaareem dañ fay defoon ay tooj tooj yoo xam ne suñu sonnee ci la ñuy yenniku dañuy dox rek baroonu tooj gi dal di yenni dal di wàcce seen bopp yuug xandi gi dal di wàcc maanaam yen bi ñaari xandi yi kees gi dal di wàcc tege ci kaw tooj gi ndaxte yooyu jamono dox amuloon masalan nit ñi barewuñu woon nii tey diggante bi àll la woon daawuñu ànd ak ku leen di yen ak ku leen di yenni tey dañuy dox ba sonn suñu doxee ba mënatuñoo dox ngir sonn dana tasanteeg ñu àgg ci tooj suñu àggee ci tooj rek ñu dal di dem ronu tooj gi dal di yuub xandi yi kees gi dal di tege ci kaw tooj gi ñu dal di àgg suuf noppalu ba nopp ba noppalu ba nga xam ne seen coono wàññiku na ñu dal di ronuwaat tooj gi dal di yësigiwaat yenuwaat xandi yi dal di dem noonu lañ daay yenoo noonu lañ daay yenni koo waaye kenn daawu leen yen ak a yenni ñooñu nga xam ne nag ñoo daan jóge njaareem di ñëw Touba di root si ci ndox mi di ko yët sëriñ Touba fa njaareem ñooñu la nag nga xam ne ndox moomu saa yoo xamee ne bii ne jó ñi jóge Touba suñu doxee ba nga xam ne war nañoo àgg diggante ndulo ak Mbakke maanaam diggante fa ñuy boo weesoo tuuti rek fi ñuy wax daru xafoor foofu daanaka fi lañ daan taseeg ak ñi jóge njaareem su ko defee diggante daaru xafoor ak xuru mbàkke wala xuru mbàkke ak daaru xafoor fu ci nekk daanañ fa tase ak ñoom su ko defee ñi daal di jawal ci Tuubaa ñi yenu woon ñoom itam daal di jàll njaareem ñooñu nag laa leen ne ku ñuy wax Madou Fall ak Serigne Mbay Serigne Madou Fall ak Serigne Mbay jenn ñoo leen daal duyal xand yi fi Tuubaa tur yi nga xam ne nag ñoo daay yenu xand yooyu nag taxagul ma xamagul ñoom seeni tur ba tey waaye nag maa ngi ci gëstu bi te bàyyiwuma am na ci yu may werante sax waaye dafa wóorut te bëgguma wax lu ma xamut kon léegi noonu la daa yaale diggante Touba ak Njaareem di yóbbu xand yooyu ginnaaw sëriñ Madou Fall moomu itam ak sëriñ Mbay Jenn ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Cissé bàyyi tax la ci Talla Cissé ministre ak ku ñuy wax Mouhamadou Jaxate ñoom ñaar ñooñu itam nekkoon nañ fa teen ba niki fi sëriñ Madou Fall nekke woon ak sëriñ Mbay Jenn léegi nag bi nga xamee ne teen bi demee na noonu nag ba ba sëriñ bi nekk njaareem ba ci xawli mujj gi la sëriñ bi nag door a bënn duppilu beneen teen ca fa nga xam ne moo nekk ca sawub jumaa ji ca fa ñi xam ne moo ci jàkka jooju nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Mbacke defaraat di doon jàkkee sëriñ Tuubaa jëm daa jullee ca penkub jàkka ja ca bitti ak teen a nga fa boo xam ne teen boobee moom la sëriñ bi duppi nag ba teen ba bëddee la ñu door a bàyyi root mi nga xam ne jóge njaareem di ñëw Touba di di jël ndox mi di yóbbu di yóbbu njaareem sëriñ bi ne leen bàyyi leen ko ndax barke ba nga xam ne ak la ma doon sàkku ca ndox moomee nga xam ne moo nekk Touba suñu borom toxal na ma ko toxalal na ma ko ba indil ma ko ci teen bi loolu mooy saw was bàyyi bu ñu bàyyi woon root mi nga xam ne daan nañ ko root di ko jële njaareem di ko jële Touba kon di ko indi njaareem bi nga xamee ne nag loolu am na teen bi teenu barkeelu la ndax wax naa leen ne la Sëriñ Tuubaa moo ko duppi ci loxol boppam moo ko rëdd moo digle gas gi itam jamonoy njaareem it jamonoy sañcub Tuubaa itam moom la tollool ah teen bi mën na gépp ràgg goo xam ne nekk na ci saw yaram di wéradi goo war a faj ci fajum docteur wala fajum wolof teen bi ak sa pësteef mën naa faj googale ràgg dana gën a leer ci kanam bépp tawati xol joo xam ne mën naa jàpp nit ki ba gàllankoor ko diggante moom boroomam ba waral ci moom ay bàkkaar ba tax ko dugg sawara it su ko boroom yëgee te naan ca ndox ma taam ca fas foofu loola dañ jëmmi ndox mi ak teen bi ak barkeel gi dana ko dindiwaale loolu seere si mooy ñaari xasir yi nga xam ne maa ngi ko tiim fas ci yéenee waxtaan ak yow ci leeralal la ko benn bu ci nekk Sëriñ Tuubaa moo ko bind ci loxoom benn bi mi ngi ko njëkk mi ngi ko bind bi nga xamee ne teen bi bënd na kooku mooy ba mu tënke wa fajarnaa al arda uyunan loolu alquran la mooy xaraf fu ci nekk aw bayit la mu tënkee ko teen boobu xasida googu nag mi ngi tàmbale ji bismillahi rahmani rahim allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة من أحب الشكر يا بديع يا من قال في كتابك الذي قلت فيه وفجرنا الأرض عيونا mu wax foofu ci tarjumaan ji ne ginnaaw bu mu waxee bismillahi rahmaani rahim ba noppi mu ñaan boromam nag sunu borom julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama borom na nga julli ci yonent bi julli gu mat gu ànd ko mucc ak barke te boole ci waa këram ak ak ci saxaabaam yépp ci barke julli googu nag maa ngi la ci ñaanaale yépp nga def sama xaside gii nga xam ne moom lay bëgg a taalif mu bokk ci cant yi nga xam ne moom nga gën a bëgg ku la na sante yow sun borom mi nga xam ne yaa pent lépp te dara pentu la lu nit di gis lu dul yàlla yàllaa ko fent lu dul yàlla it yàllaa ko moom te yàlla dara moomu ko te yàlla itam dara fent ko yow yàlla moomu nag yaa wax te ci sa wax jooju ci lay tënk sama xasida gi yaa wax ci sa téere bu tedd bi di alquranul karim yaa ne wa fajar naa maanaam bënn nanu wala yolal nanu sotti nanu al arda suuf si ngeen di taxaw def nañ ci biir suuf si uyunan ay bëti ndox yu barkeel kon daf lay xamal ci biir loolu ne la sunu borom mi nga xam ne ci matam ak barkeem ak yërmandeem ca la joxe woon Ismaayila teenu Kawsara ba nga xamee ne Ibrahima jële na Haajara suuf fa nga xam ne ci la dëkkoon indi ko suufus makka wacc ko foofa sanc mu sanc fa ah te loola nettali ko sax taxunoo jóg waaye dañuy wax rek kenn kawsara ci gàttal ba nga xamee ne Ismaayila mar na ba maroo metti ba metti ci yërmaande suñu borom nga xam ne loolu sax diggante Safa ak Marwa daw ga nga xam ne gi Haajara doon na ko ko daw di séentu ba xam ndax dana gis ko am ndox ku ko mën a xettali doom jéem néet loolu moo waral ci biir mashaa'irul hajji ñu boole ci daw Safa ak Marwa kon sunu borom nag dal koy indil bëndal ko teenu kawsara ak anam gu mu ko mën a bënde nettali yi bari na ci ci téere yi waaye mu indil ko teenu kawsara mu dal cay jox ko ca ndox sang ko ca teen ba nekk teenu barkeelu sunu borom def ci yërmandeem teen booba di dox ba sunu borom ci boppam indi aw saar woo xam ne ci lay wax ak yonent bi naan ko inna aataynaaka al kawsara waaye nun de jox nan la li ñuy wax kawsara kawsara nag ci cosaan ab jéeg la boo xam ne bii mooy xawdu nabi yi sallallahu taala alayhi wa sallam ba nga xam ne ajjana la nekk ca buntu ajjana bala boo jigee siraat ba noppi bala ngaa dugg ajjana da ngay naan ci déeg boobee soo ca naanee saw yaram dafay leer nañ ba soo xoolee sa soxna gis sa moroom gis sa bopp bu la sa soxna xoolee gis boppam nga xam ne moom la sëriñ bi di junj junj ginnaaw boo ci naanee ba noppi mu naan mir'atu azwajiha abdaanuhunna naam isnuru abdaaniha yasri sirajaati ginnaaw bu ñu naanee ca teen ba noppi ca loolu di mën a amee nga xam ne boo xoolee sa soxna sa yaram nga séen ko ci sa bopp ci sa jëmm sa soxna bi bu la xoolee boobee mooy cosaanu kawsara kawsara boobee nag mboolem xeeti xéewal yépp suñu borom daf ko caa ndef def misaal ko ca nag ci bi nga xam ne mooy teenu kawsara bii ci àdduna nga xam ne buñ doon firi loolu rek dana doy waxtaan sëkk ngir wax la xéewal yi nekk ci biir kawsara ndax bu ko suñu borom di indi saar naan ko inna atinaakal kawsara jox na la déggu kawsar xéewal yu bari ya nga xam ne nekk na ci kawsara googee ak xéewal yu bari yi nekk ci kawsara gii nekk ci biir makkatal mukarrama moo tax alxuraan di ko junj kon suñu borom ma defoon loolee nag mooy suñu borom tey mi nga xam ne moo defaatal Serigne Touba teenu kawsara bii ñu di ko wax aynu rahmati ci Touba kon ma ñëw ak yow nag ci xasida gi nga xam ne ci la Serigne bi waxtaane xéewal yi ko suñu borom defal mu wax ne mu jël waaw ne wajaba hamdullahi wasalaatu ala alladi tafi bihi silaatu yëg naa man sëriñ Tuubaa ne war na bu baax a baax a baax ci man ma sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne ci yërmaaneem ak bu baaxam ci la ma joxe teenu aynu rahmati bi le bi ma sant yàlla ba noppit war na ci man ma julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu baax a baax ndaxte yonent bi alayhi salaatu salaam ci sellu sama diggante ak moom ak bëgg gumma bëgg ak jagle yoo xam ne am naa ko ci moom moo waral ma mën a am aynu rahmati mu wotti teenub zam-zam boobu nga xam ne moo nekk makkatal mukarrama damaa jum di la wax kawsar waaye kawsara ma nga aljanna zam-zam nag moo nekk zahir ci àdduna kon teenub zam-zam boobule mooy bii fi Tuuba waaye nag am na it ci almufassiroon ñoo xam ne wax nañ loolu ma la wax wax ne zam-zam mooy kawsara léegi mu ne nag kon danaa sam su yonent danaa sam suñu borom julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi moom moomu nga xam ne nag ci baaxam ak matam ak barkeem ci la ma ay may dikkale ndax salaatu ju mujj yi mooy julli ci yonent bi kon soo ko maasee salaatu soo maasee ca kaw muy ñaanal yonent bi xéewal waaye su fekkente ne maas nga sàgg ci suuf nag muy firi ay may kon wajaba war na alhamdulilahi sant sunu boroom moom mi nga xam ne xéewal yépp ngi ci loxoom naka noonu it war na wasalaatu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne maanaam xale la si moo ci yàlla nekk ci yonent bi moom mi nga xam ne te fii dina dikke bii ci mbaaxam ak barkeem ak silaatu mayi sunu borom maanaam mayi sunu borom ku ca mos dara ku mu doon booye boo ko sante ko yonent bi te xam ne ak mbaaxam moo la ko jagle waaye bul ko nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam doo ko mos loolu mooy bayit bu njëkk bi ci gàttal ndax bañ bànn bi ëpp léegi moo wax ne mu tekki ne fa jarta yaa rahmaanu ayna rahmati maa salaamatin wa xayri niamati mu ne ko fa jarta bënn nga wala yolal nga in fajaratil maahu isaa xaraja min al biiri wan fajaratil maahu isaa saala min al min ilal widiyaat kon fajara ji bu dee ci kenn bënn lay tekki su fekkente ne ci ndox muy taala nag sottiku lay tekki mu ne ko kon fajarta bënn nga yaa raxmaanu yow yërëmaa kon bi kii yàlla tabarakata wa taalayta lan nga bënn ayna rahmati teen bi nga xam ne mooy bëtub yërmande bëtub yërmande bi nga xam ne lépp looy yërëmee nit lépp lu nit di bëgg lépp mi ngi ci biir teen bi lépp lu nit di ragal itam teen bi mën na ko dàq kon loolu moo tax mu tuddi ko ba bëtub yërmande te dana gën a leer ci kanam mu tekki ne maa salaamatin mu ànd ak moom teen bi mu ànd ak ak mucc goo xam ne gi lépp lu nit di ragal rek teen bi mën na la caa musal wa xayri niamatin mu ànd ak it ngeen ji xéewal goo xam ne lépp lu nit di bëgg rek ma nga ci biir teen boobu ci biir ndox ma sa pastif moo la ko cay may mu tekki ne ji naaka yaa karimu yaa qaxaaru yaa man lahul buhuuru wal anhaaru kon nag jutta lana bil maayi wal arzaaqi yaa xayra muutin naafiin razaqi yow sun borom ji naaka dikk nanu nag fi yow te it di sàkku nag sa ndimbal ak sa yërmaande te kat yow mi ngi sàkku ci yow ndimbal ak yërmaande yaa karimu yow ay aji tedd ji nga xam ne fu tiraa nga nekk yaa ko fa def te it yow kat lépp lu ñu di ragal ma ngi ko caa musal ndax yow ay qaxaar bi nga xam ne amut lenn loo xam ne sa bët bët na ñaan mën na caa tege te nga bañ ko kon nag noo ngi lay ñaan nga bañal nu lor te kon duñ lor ñoo ngi lay ñaan it nga bëggal nu nga bëggal nu yërmaande kon nu am ko mu tekki ne yaa man yow yàlla mi nga xam ne loxoo ñeel na ko albuhóoru mboolem géej yépp wal anhaaru ak mboolem xeeti dex yépp ak xeeti ndox yépp mi ngi ci say loxo kon nag ci biir not googu nga not lépp ci biir sa baax googule ak ci biir moom gi nga moom lépp ci laa lay ñaan ci teenub ay nu raxamati bile moo tax ba ñaan googu nga ne jutta may nga nag bi ma la ñaanee mu nopp may nga lanaa ñeel nu bil maa yi andil nga nu ndox moo xam ne ay nu raxmati bënn na kon wal arzaaqi waaye du ndoxum kese rek mu ñuy naan boole nga ci ay wërsëg lépp loo xam ne lii nit soxla na ko ci xeeti wërsëg lu mu doon bu sàkk ko ndoxum ay nu raxmati naan ko taam ca pasteef dana ko ca am kon nag yow mi nga xam ne yaa def loolu te yaay sunu borom tabaraka tabaraka wa taala ta yaay yaa xayra mu'tin yaay ngeen ji képp kuy joxe kuy joxe ku mu doon yaa ko gën ndax la muy joxe yaa ko jox ba mu di ko mën a joxe te it yaa xayra naafiin yaay ngeen ji aji jëriñe lépp lu nit di bëgg ci xeeti njëriñ it mi ngi ci say loxo ba fépp fu njëriñ nekk fu mu doon yaa ko fa def te it yaa xayra razaqi yaay ngeen ji wërsëg laa kon kon sooy tekki yaa xayra mu'tin yaa xayra naafiin yaa xayra razaq noonu les koy tekkee yoway ngeen ji aji joxe yoway ngeen ji aji jëriñ yoway nga ji ngeen ji aji wërsëgal yow suñu borom tabaraka wa taala ta kon nag bi loolu amee mu tekki ne radita anna wa radina anka wala nazaalu fi zdiyaadin minka radita gërëm la gërëm nga annaa ci nun ndax lépp loo xam ne digal nga nu ko rek sax nan ca loola ba nga yëg ne def nanu ko lépp loo xam ne tere nga nu ko wan nan ginnaaw loola ba mu wóor la ne laalu nu ca dara te kat foofu képp koo xam ne ki yaa ngi ñaan suñu borom dafay aajowoo aw ñaaniin ndax yàlla kat moo waxoon na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko wa ida saalaka ibadiya anni fa inni qaribun ujibu daawata daai isa daani waaye nag fal yastajibu li wal ya fal yastajibu li wal yomino bi la alam yarsudoon la ci alxuraan teg kooku li muy tekki mooy yonent bi la suñu borom waxoon ne ko saa yoo xamee ni bii ne nit ñi ñi ngi lay laaj fan laa nekk fan laa nekk fan laa nekk nee leen maa ngi nii jege lool maa ngi gën a jege seen bu muy xol waaye nag na ngeen xam ne su ngeen ma woo rek maa ngi dégg te fu ngeen ma wooyee man damaa daal di wuyu fa saasa te ku mu wooyee dinaa la wuyu waaye nag na ngeen yëg ne yéen itam woo naa leen ci ngeen gëm ma te ku ma gëm dafay aajoo nga sakkal ko tegtal mooy li ma tere da nga koy bàyyi li ma bëgg da nga koy def su ko defee nag ma xamee ci ne gëm nga ma képp koo xam ne kii gëm nga ma nag te gëme ma noonu kon loo ma laaj rek dinaa la ko jox fi saa si moo tax te moo tax sëriñ bi wax ko ne ko rabbi te gërëm loo nga xanaa ci nun bi nga xamee ne gëm nañ la ba noppi li nga nu tere lépp musunu caa laal dara ba nga nuyoon ci jàjj li nga nu digal lépp musunu caa bàyyi dara ba nga nuyu ci xupp kon nag léegi ban ban defee sa ngër ban defee loolu ba noppi ci nga nu gërëme moo tax it yow itam war a di naa gërëm loolu na it xam ka ci yow ndaxte nu itam bi nga xamee ne def nañ sa ndigal bàyyi sa tere liñ la ñaanoon lépp lépp lépp jox nga na ko ba jox na loo xam ne di ñaanul la ko woon moo tax loolu mooy radiyallahu anhum wa radu anhu maanaam sun borom daf lay gërëm ba noppi ci lim digle ak lim tere nga rafet noo bàyyee tere ga rafet noo jëfe ndigal la sun borom gërëm la xéewali sun borom door laa dikkal nag yow itam nga door a gërëm sa borom ruus nag ci xéewal yu bari yooyu mu la jox loolu noonu la sëriñ bi waxee loolu yi moo tax nag sëriñ ba tekkee ne kon nag ginnaaw loolu am na wala nasal duñ dañ mukk nag fis di yaadin ci ak dolliku min ka ci yow waxtu wu nekk nag yëg nañu ne sun bis bu nekk mooy gën sun démb sun suba su nekk mooy gëccal sun tey ndaxte yaa wax ne la in shakartum la azidannakum saa yu ngeen ma santee naa leen dolli te nun noo ngi sax ci di la sant te sant gi du lu ñuy wax ci sunu làmmiñ day doon lu ñu jëf ci sunuy cër sunuy sunuy bët sunuy loxo sunuy làmmiñ sunuy tànk sunuy lépp dafay seere sant googu ci sax gunu sax ci li nga xam ne moom nga digle ak daw wattandiku ñàkk a laal gunu ñàkk a jege la nga xam ne moom nga tere kon nag yëg nanu ne ginnaaw loolu am na te yaanu xéewale loolu nu mën ko def kon nag waxtu nekk am nan kóolu téef am nan yaakaar ju dëggu ci ne waxtu nekk dañuy dolliku ci yow sëriñ bi tekki ne nafatanaa bi ma lana sharia aada bi risqin lir rida zaria nafatanaa jëriñ nga nu yow suñu borom bi maa ci xéewal ya nga xam ne aada wammatoon na ko ashariatu almutahara yoonu yonent bi sunna si yonent bi alayhi salatu salaam xéewal yi nga xam ne sunna si yonent bi indil nañu ko lépp xam nañu ne yow suñu borom jëriñ nga nu ca itam masalan mënees naa nekk ci sunna si yonent bi di jël liggéey mënees nay jaamu yàlla ci ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee ba noppi te du tax nag nga am ca jagle dafa bëgg a xam ne suñu borom ne ko nag mbirum sharia ak mbirum sunna indil nga nu ca ak jagle boo xam ne gii indil nañu wërsëg birisqin risque wërsëg woowu yi nag jëfandikoo gun ko jëfandikoo ci sa ngërëm moo tax aada womat na birisqin ci wërsëg woo xam ne mi ngi ñot di jëmee ci li riba jëm ci sa ngërëm yow yow suñu borom tabaraka wa taala te itam zaria dafay nekk loo xam ne lu aji dàkku la loo xam ne lépp lu dul ngërëm dafay dox suñu diggante ak loola mu dal cay teg ne antal qawiyu wal qawiyu awlaa bi an yakuna nasiran wa mawla anta yow suñu borom day alqawiyu yaay borom kattan gi nga xam ne mën ngaa jëfandikoo sa kattan te sa kattan googu amul genn kattan goo xam ne mën na koo not te sa kattan googu fépp fu kattan nekk moo ko fa def kon nag sa kattan googu qawiyu nga ba noppi nekk qaadir kattan gi mën nga koo jëfandikoo ci loolu wuti naag bindeef yi bindeef yi am nañ kattan waaye am na seen kattan am na fu mu mën a yem fu muy tàmbalee fu muy yem kon nag yow suñu borom yaay borom kattan gi nga xam ne mën ngaa jëfandikoo sa kattan ku mel ni yow nag amee noonu kattan mooy ki nga xam ne kii moo gën a yey moos ci wal xawiyitu borom kattan ku mel noonu awlaa moo gën a yey bi an yekkoon ci mu nekk moom ki kattanam mel noonu naasiran di aji dimbilee wa mawlaa tey buur boo xam ne bii mën naa jëli ay jaam yu mel ni noonu lotte ni noonu ñàkke solo ni noonu mu tekki ne anta rahimu warrahimu aqmanu bi shukri shakirin ataahul amanu anta yow suñu borom day arrahimu yaa yërëmaa kon bi rahim nag moom dañuy wax ne rahmaan moom ki nga xam ne yërmaaneem matale na bindeef yépp ci àdduna yërmaane suñu borom ji mu amee melaw suñu borom bi mu amee ci àdduna te mooy melaw rahmaan ki ko gëm ak ki ko weddi ki ko xam ak ki ko umpule boromum xel ak ku dof nit ak ginne malayika ak bàyyi ma ak sànqaleñ yeeg yépp a ci yem kenn ku nekk yërmande suñu borom ma nga lay fekk fa nga nekk di la musal di la di la di la joxit wërsëg woo xam ne ci ngay mën a dund kon nag moo tax mu ne kon rahmaan loolu ci àdduna la waaye nag rahim moom alaxira rek lañ ko yaakaare alaxira rek it la jëm jëfandikoo ba ndoxum ay nu raxmati nekk loo xam ne dafay ambaale xéewal ya nga xam ne raxiim yore na ko ca yowmal qiyaamati ba da dañuy wax naan arraxiimi ki aji yërëm jullit dong ca laaxira na suñ borom melaw suñ borom di yërëmee jullit nag ca laaxira melaw woowee la suñ borom la sëriñ Tuubaa di waxanteeg moom fi ci àdduna ngir bëgg mu solal ko ci ndoxam nii ñuy wax ay nu raxmati ba képp ku ko naan mu musal la ci lépp luy tax nga mujj luy lépp luy tax suñu borom du la mën a yërëm ëllëg moo tax mu ne ko anta yow arrahimu yaa yërëmaa kon bi nga xam ne koo yërëm dugg àjjana war rahimu te yërëmaa kon bu mel noonu nag ak xamoonu moo gën a yey bi sukkuri saakirin ci cantuk aji sant jaam buy sant boo xam ne ataahu dikkal na ko al amanu xéewal wala kóoluteef goo xam ne jóge na ci boromam mu wax ko ne ko yow rek yaay ki nga xam ne kii yaay yeyoo nag cantug jaam te man de jaam laa boo xam ne bii damaa war a sant fii ma toll ndaxte jamono yi may wax ak yow rek jox nga ma ci xéewal goo xam ne gii jox na ma moom jëmi xéewal ga jox na ma kóoluteef goo xam ne gii xamee naa ca ne képp ku jëfandikoo xéewal googee su ma ko jëfandikoo ak képp ku jëfandikoo te gëm mu ànd ak ku gëm ak yaakaar ju wér sa diggante ak sa borom ah dana la jox kóolu teef bu mel ne googu mu la jox moom mooy ndoxum ay ndoxamati moomu dana gën a leer ci kanam moo tax mu teg ko ca ne ko lakkal miyaahu wa lakkal baraaya yaa qaaidan lii bir rida qiraaya yow suñu borom de lakka ñeel na la al miyaahu mboolem ndox yépp wa lakka ñeel na la it al baraaya mboolem bindeef yépp yaa moom ndox yi yaa moom bindeef yi itam kon nag ci moom gi nga moom ndox yépp ci biir ndox yooyu ci la ndoxum sam-sam nekk ci la ndoxum kaw sarama ñuy jëfandikoo àjjana ci la nekk kon nag yow mi nga xam ne yaa moom ndox yooyu te ab jaam rek lay ñaan nga may ko te bu la jaan jaam jaam mayut nga mere bu la jaan jaam ñaanut kon nga mere ko kon nag man jaam laa boo xam ne maa ngi lay ñaan ci sa sa baax ak sa mat ci sa ndox yooyu nga xam ne day indi mucc di indi xéewal maa ngi lay say ñaan nga jox ma ca kon nag yaa xaayidan yow yàlla mi nga xam ne yaay aji wa mat xiraaya sama bernde lii mu jëm si ci man bir baa tam ànd ak ngërëm yow mi nga xam ne li ma bëgg lépp nga xam ne moo may bégloo moo may dimbali lépp mi ngi ci say loxo maa ngi lay ñaan nag nga indil ma loolu nga xam ne moom laa bëgg ci ceenob aynul rahmati bi le mu teg ci ne ko asqaytanaa xayra miyaahin yartawi shaaribuha wa xayra fawsin yaxtawi asqaytanaa màndal nga nu min saqa yasqi isa arwaahu mu mel ni asqaytanaa su nit tànqee ndox jox la mën nga ko ne asqaytanii naka noonu nag kon Sëriñ Tuubaa amoon ndox mu mu bëgg sunu boroom nag jox ko ndox moom moo tax mu ne ko asqaytanaa màndal nga nu loonu màndale xayra miyaahin ngën ji ndox ndox la moo xam ne mboolem ndox yépp bu ñu àndee moo cay gën ndox moomee nag la tax ma ne moo cay gën ndaxte ku ko naan yerte wi day màndal shaaribuha ka ko naan ku ko naan rek mu màndal la ba dootoo mar loolu la muy tekki mooy leeri suñu borom moo nekk ci biir ndox ma ba képp koo xam ne kii naan nga ci ndox mi te am ca pësteef yëg ko dana dox sa digganteeg lépp lu lay tilimal sa digganteeg sa borom moo tax mu ne yerte wi dina màndal shaaribuha yerte wi dina màndi shaaribuha aji naanam te it wa yaxtawi dina làq xayra fawsin ngën ji ak texe képp koo xam ne kii naan nga ci ndox moomu itam texeeg adduna mooy lépp loo bëgg ci adduna rek nga gis ko kon soo ca amee pëstéef te ñaan ca loola ndox mi dana la ko may te it texeeg àllaaxira mooy amul njëggal ak dugg àjjana képp koo xam ne kii naan nga ci ndox mi te am ca pëstéef it dana defalu njëggal sa diggante ak sa borom dana la duggal àjjana itam moom ndox mi mu tekki ne rabbik fina saqaawatan wa dayra qabla intihain wal su saffil mayra yow sun borom nag maa ngi lay ñaanaat naa la rabbi yow sama borom day ikfina rik noo ngi lay ñaan nga fegul nu shaqaawatan lépp luy niroog texee di te texee di nag ñaari xaaj la ni texee ñàkk nekk ñaari xaaj texee dik adduna ak texee dik àllaaxira maa ngi lay ñaan nga musal nu ci texee dik adduna texee dik adduna nag bokk na ci sax ci ak mooy yàlla sax ci jubadi kooku ak it lépp loo bëgg ci àdduna doo ko mën a am ñaari xaaj la ci àdduna képp koo xam ne kii nekk na ci sax na ci mooy yàlla na xam ne ku texee di la ci àdduna képp koo xam ne kii sax na ci lépp lu mu bëgg du ko am loo sàkk doo ko jot looy wuti doo ko fekk kooku it ci xeeti texee di la waaye texee di saahir la kon loolu mooy texee di àdduna texee al texee di àllaaxira nag mooy sun borom dënniru la maandu ci say mbir bañ laa jéggal sawara yooyu la nga dugg sawara kooku mooy ci xeet àllaaxira yàlla na ci yàlla musal ci ñaar yépp sëriñ bi ne nag kon rabbi yow sama borom ik si naa noo ngi lay ñaan nga fegal nu saqaawatan mboolem xeeti texeet yi wa dayoon ak mboolem xeeti lor yépp te it bul toog ba texee di ñëw ci nun lor dikk ci nun nga door nuy fegal loola muy wér déedéet xablan ci haayin nangu nu ko fegal ba mu daataa jóg jëm si ci nun saa yu jógee jëm si ci nun rek balaa jóg jëm si ci nun yow da nga ko xam yow na nga dox suñu digganteeg moom ba buy jëm buy dox mu jëm feneen fu bokkul ak ci man Serigne Touba ak képp koo xam ne ki aju nga ci man saa aju ngay dëgg soo ma defee loolu bu noppi bul ci yem waltu safi maa ngi lay ñaan rikk nga neexal nga sellal al mayra dund bi may dund sama digganteeg yow ab dund nag ba tey nit ki dundub dundub nit dafa am dundub bàyyi ma am dundub malayka it am dundub bàyyi ma mooy diggante ñax mi ak yi nga xam ne dana ko defar kooku mooy dundub bàyyi ma dundub doon du mu aadama nag ba ca gën mooy xam-xam dundub ñi nga xam ne ñooy malayka yi nag mooy leer suñu borom kon Serigne Touba fi mu waxee du dundub bàyyi ma dundub doomu aadama la ak dundub malayka kon wal tu sofil mayra wal tu sofil ki na ngay tellal na ngay sellal al mayra xont ba xont bi nga xam ne moom lay dundee sama digganteeg yow na nga koy sellal bu baax ba muy leer yu sell yu jóge ji ci yow ndaxte man kat loolu rek lay mën a dundee ndax Serigne Touba doxoon na ba àgg ci mën naa bañ a lekk mën naa bañ a naan ni yonante bi doxaloon ba àgg ci mën a bañ a lekk mën a bañ a naan ba ñu di ko laaj naan ko looy lekk ak looy naan yonante bi naa leen yut'imuni rabbi wa yusqini noonu yi Serigne Touba doxoon na ba àgg ci te yaakaar naa ci biir bande yi ñu waxtaanee woon ak yéen bu ngeen ko ci dégloo da ngeen ko ci gis foo xam ne Serigne Touba wax ci nettali koor googu nga xam ne amoon na ko ca Maayombe te koor ga nekkoon koor goo xam ne ab xaal ci lay xëdd di ca doge ba weer wi jeex te xaal ba ku ku weeru xaal ga suruxut ci ci xaal bi kon la njëkk xaal la njëkk koor ga daawut lekk daawut naan kon xontu ku mel noonu ki nga xam ne mën na loolu mën naa bañ a lekk mën naa bañ a naan kon ab xontam bukkul ak tibb seq bukkul ak yàpp bukkul ak ceeb bukkul ak leneen kon leeri boromam la la jubloo wax mu wax ko nag sunu borom ne kon leeri sun sa leer yi nga xam ne am nga ko nag maa ngi lay ñaan nga defal ma ko ci sama teen bi muy sama xont boo xam ne saa yu ma ko naanee rek naan ku képp ko naan itam naanaale ko su fekkee pësim àgg na ca mu tekkee ne bu ma fu aada saaribin minha ila ab idati alladina faaso bil ila maa ngi lay ñaan yow sun sun borom yow mu baax mi yow mu sell mi maa ngi lay ñaan bu ma rikk na nga boole wala na nga na nga tàppe boole ak tàppe jël benn teg ci benn mooy tàppe loolu it xam ngeen ne mooy boole ci wolof kon mu ne ko na nga tàppe fu aada saaribin xolub képp koo xam ne kii ku naan la ca ndox ma min ha ca ndox ma képp koo xam ne kii naan naan nga can ca ndoxam na nga jël ab xolam boole ko ci ban xol ila ab iddi lësina na nga ko boole ci xolub gaa ya nga xam ne vaso texe nañu bil ilaa ci say may ak say leer yow suñu borom képp koo xam ne kii naan na ci ndox mi lépp lu nekkoon ci xolam ci ay tilim tilim ak xeeti bakkaar ak xeeti bëgg adduna na na ko ndox mi raxas ba mu set wicc wicc wicc ba mu set wicc te itam nga dugal ci nag ak bëgg sa borom ak bëgg boromam ak bëgg lu baax ak bañ lu bon ak ba mu ba nga xam ne loola mooy tax mu mën a am nag sa xéewal yi ak ci sa leer yi jot ca lépp luy tax mu mën caa mu mën a am loolu rek na nga ko def nag ci ndox mi ba képp ku ci naan loola mu mën caa jot mu tekki ne عن القلوب اغسل بها كل عيوب وعندك اجهلها مفاتيح الغيوب اغسل ما ngi lay ñaan nga raxas عن القلوب walif xolub gaa ya nga xam ne naan nañu biha ca ndox ma képp koo xam ne ki naan na ci ndox mi na nga raxas xolam ba mu set wécc ci lan nga koy raxas kulla uyubin bépp ayib na set wécc ci ayib ba mu ragal yàlla gëm la sellal ba say xéewal man koo mën a dugg ci xolam te it na nga ca teg waaye ndekk ci xëlha wacc xëlha na nga ko def moom ndox mi di teen bum añ rahmati na nga ko def moom teen bi képp ku ci naan na nga ko def hindaka fa yow moom ndox ma mafatihal xuyub muy ubbi kaayub caay bi ji nga xam ne mooy ubbi sa magasin yi xëy bu yi nga xam ne ca nga denc sa xam-xam yi nga xam ne mooy say secret masalan képp koo xam ne kii naan na ci ndox mi ku mu doon bu naanee ci ndox mi te am pëstéef te amuk yëg digganteem ak boromam na nga def ndox mi muy caabi ji ubbi sa digganteeg moom ba mu mën ba mu mën laa gën a xam mën laa gën a topp mën a gën a gis say kéemtaan mën a gën a xam say secret ba nga xam ne bokk day bokk ci ñi nga xam ne jaam ñi lañ nga xam ne am nañ ci yow ak ragal dëgg dëgg dëgg dëgg ba seen ba mën a jot sa xéewal yow suñu borom tabaraka wa taala mu tekki ne yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana saqaytana yaa rabbana foofu bari na ay tekkiin yuñ ko mën a tekkee su la neexee nga def yaa rabbana yooyu mu nekk arkaanul islaami al xams maanaam juróomi ponk lislaam yi nga xam ne moom la yonent bi waxoon ne buniyal islaam ala xamsin shahadati an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah gëm yàlla ab julli asaka ak woor ak aj makka mu ne ko yow mi nga xam ne yaa indil xéewal ci juróom ñaari juróomi ponk yooyu nga xam ne mooy lislaam yow moomu day yow sun borom sa xaytanaa yaanu màndal ndox moo xam ne ci biir ndox moomee ca nga ne jox tuyaaba joo xam ne ku naan ca ndox ma rek bu lam la ak gëm yàlla di mën a def ci nit ndox ma dana ko mën a def ci kooka la julli di mën a la nit ki mën a nit ku ragal yàlla mi mën a jële ci julli compostif bu naanee ndox mi am ko ca li nga xam ne borom xol bu sell bu am alal génne ci asaka mën na koo am ci joxe asaka nanga nanga ma ko defal ci ku naan ci ndox mi te amuk sellal tuyaaba jooje mu fekk ko ci biir ndox ma na nga ma defal képp koo xam ne kii ku ragal yàlla ku mokk kuy woor tuyaaba ja nga koy jox ci biir koor ga maa ngi lay ñaan nga def ko ci biir ndox mi ba képp ku naan ndox mi rek tuyaaba jooje mu am ci su fekkee positif bi àgg na ca naka noonu it yoolu aj màkka na muy baax baax ak la muy sell sell coono ba la muy metti metti waaye yow mën nga ko def fu ne ndax yaa ko moom maa ngi lay ñaan képp koo xam ne kii aj na màkka la la nga ko cay fayet aj ga sell la nga ko cay faye na nga ma ko defalal ci ndox mi ca ba bépp talib boo xam ne bii bëgg naa aji màkka te mënu ko bu amee pëstéefum naan ci ndox mi rek ndox mi dana ko defal yoolu aj màkka googu kon juróom yooyu noonu la la ko mën a tekkile juróomi waxtu yu juróom it noonu lañ mën a indee kon boobu tekki rek dana doy mu tekki ne kon yow sun borom nag waqaytana saral baraya turra kon de xuttalana fi kulli shay'in birra mu ne ko yow sun borom nag noo ngi lay sant bu baax bu baax a baax ndaxte waqaytana fegal nga nu saral baraya ayu bindeef yépp muy malayka yi nit ñi jinne yi ak mboolem xeeti ngelaw yeeg lépp fegal nga nu seenu ay ba dara munu munta ak ci noonu ci xeeti lor lu dul lu jóge fi yow te yow doo lore moo tax nag ba xutta lanaa xutta wamman nga lanaa mu jëm si ci nun biran ak topp yàlla fiikul seen ci lépp lu ñuy def lépp lu ñuy def rek indil nga nu ca njariñ indil nga nu ci tooyee tuyaabay topp yàlla kon loolu mooy tekkaleen li ma la waxoon sànq ne la ndox mi ku ca naan mu indil la gëm indil la tuyaabooy gëm indil la tuyaabooy julli indil la tuyaabooy aj asaka indil la tuyaabooy koor indil tuyaabay aj màkka kon moom la sëriñ bi junjaat fii ci lan xutta wambat nga la ñelu fiikul seen ci lépp lu mën doon biran ak tuyaabay topp yàlla kon mu tekki ne naxnu al ayaalu wala ayaalu ajdaru bi an yuxassasa bi xayrin yanduru naxnu nun ñuy wax ak yow al ayaalu nooy say njaboot yi nga xam ne noo di say jaam yi nga xam ne yow képp lanu am amunu keneen ku dul yow te bëggunoo amit keneen ku dul yow yow rek la ñu am te yow rek la ñu fas yéene topp kon nooy sa njaboot kon loolu li muy tekki mooy jaamu yàlla jaami yàlla yi nga xam ne nangul nañ seen borom ñooy njabootu suñu borom buur bu nekk cim réew ku nekk ci biir réew ma ci noteelu buur bi ngay nekk waaye nag am na ci ñoo xam ne ñoo gën a jege buur bi te lax la tax ñu gën a jege buur bi ñoo ko sàkku seen bopp jëf ndigali buur bi bàyyi teram ci lañ ko amee kon nag ñëpp fetteer lu lànk teewul buur bi yilif leen waaye nag buur bi du leen boole ci njabootam kon moom lii mu wax loolu la ci tekki mu ne nag wala xiyaalu njaboot bu demee noonu nag ci lot akuk doye di ak dër mu ñoo gën a yey bi an yu xasasa ci ñu di leen jagle bi xëyrin ci yi woo xam ne wi yëndaru dana néew moos nga di ko jox keneen kon nag maa ngi lay xamal ne ñii ma nekkal sa njaboot lañ te may seen kilifa te may itam nii laa demee ci yow ku mel ni man jaboote ñu mel ni ñii ma jaboote ci lot akuk doye di akuk ñàkk laa xam ak ni ñu la bëggee ak ni nga xam ne noonu lañ tëlee topp nun ñii de noo gën a yey nag ci nga dinu jox yiw woo xam ne mosoo ko jox kenn te doo ko joxaat keneen sunu ginnaaw kon nag noo ngi lay ñaan ci biir ay nu raxmati mi la ndox mi nga defal nu ci yiw woo xam ne mosoo ko defal kenn wala doo ko defalaat keneen wala mu yiw woo xam ne danay néew boo ko defalee kenn mu mel ni biiru zam-zam yiw wa ca nekk nga defal nu ko ci sunu teen bi la mu tekke nag ne adim salaamayka bila nihaaya li man xawaal fadla bi xayri xaaya maa ngi lay ñaanit nga teg nag ci sama ñaan googu nga tegal ma ci lii na nga ma jokkalal ci yonent bi alayhi salaatu salaam say xéewal ak sa mucc te it xéewal yooyu ak mucc googu bul ko sàkkal fenn fu muy tàmbalee bul ko sàkkal fenn fenn fu muy yem xëy na mën naa am tàmbale waaye bu mu am fenn fu muy yem li feeg yaa ngi nekk yonent bi di doon yonent bi rek bindeef yi di doon say bindeef rek na ngay julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam te kooku may julli ma bëgg nga julli ci moom nag li man na jëm ci ki nga xam ne xawaa làq na alfadla nga ne lépp a ngi ciy loxoom te it nga ne loolee amul fuñ koy natt ndaxte bi xëyri raayatin ci lu tub dayoo la amul lu ñu naan nga ne li fi la tàmbalee wala fee la yem sa nga ne yi nga yoroon yépp amul fu mu tàmbalee amul lu yem te teg ko ci loxo yonent bi alayhi salatu wasalaam kon nag xasida gu jëkk gi foofu la yem ci la doon ñaanee boromam li nga xam ne moom la bëgg mu nekk ci teen bi danañ ci war a teg xasida ñaareel gi waaye lii la tëj xasida ga mu ne wa taqabbalaha nangu na ko rabbu min min qaayilaa ci ko wax bi xabolan ci nangu xasanin gu rafet bi la afatin ci lu mu da ca teg benn gàkk wala kadirin du caagin mu da ca teg genn nëx-nëx ni mu ma nangule sans wax ji li ma ko ñaanoon ci añu rahmati nangul na ma ko te andut ak menn musiba mu ciy war a dikkaat di ci dikkal sama kenn te it amul lenn loo xam ne lii nëx-nëx la yu ciy war a tàbbiwaat du te it nekku ci nax wala bay na xóot nekkul diggante moom mi wax wax ji boo bay na ahadi ak diggante keneen nag koo xam ne dina dikk ginnaaw te mooy Serigne Touba ak njaboot nekkul diggante Serigne Touba ak suñu borom nekkul diggante njaboot gi ak seen borom kon loolu baaxu Serigne Touba moom la ñu dikkale ci loolu mu tekki ne amin dagaa naa nga naw yaa rabbal alamin yow borom bindi bi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon mu dikk ak yow ci xasida gi nga xam ne gi mooy boog ñaareel xasida googu nag man ko ubbee bismillahi rahmani rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من قائل هذه الأبيات شكره لك بقوله الحمد لله وحده جناب واحد بسم الله الرحمن الرحيم ديك با رك mu tekki nag ne lii ma lay bëgg a wax nag nanga ma ko nangul man mi koy wax man maay Mouhamadou Bamba xaadimu rasulullah nag ma nangul sama wax ji nanga ma nangul bayit yi te bayit yi dama la ci sant rek ci xéewal goo xam ne ñaanoon naa la ko te nga may ma ko kon dafay mel ni ki xaawel gu jëkk gi bayit gu jë xasida gu jëkk gi sëriñ bi daf ci doon ñaan xéewalu ñaar la gi mu da ci sant mi ngi ko tënki alhamdulilahi mbooleem xeeti cant yent li lay ñeel sax na ñeel yàlla wax dafa moom képp moom rek laay sant ndax li ma ko ñaan lépp moom rek moo ma ko defal قصيدة مت بيكو الحمد لله الجزيل النعمة على خروج ماء عين الرحمة الحمد مولم خيتي كانت يين لله نيوم نيب سخنا نيال يالا يالا مومي نك الجزيل النعمة موي كيغا خامني مو امي خيوال يو ديج ييب ميغي سي لوخام خيوال يو ري ييب ميغي سي لوخام لو خيوال ري ري ميغي سي لوخو يالا لو خيوال توت توت ليپ ميغي سي لوخو يالا موم ميغا خامني نك مو يور اي خيوال te xéewale ma nag ala xuróoji maa i ayni rahmati ci génnu ndoxum teen bi ñuy wax aynu rahmati mu defal ma xéewal ndoxum teen ba bënn na la ma ko ca ñaanoon li def defal na ma ko ca kon nag moom mi nga xam ne moo yor xéewal te yore ko noonu moo ma defal loolu kon moom rek lay tan mu teg ne lil mustafa rumtu salaatan ma salaam bil aali wa sahbi min allahi salaam rumtu sàkku naa salaatan ay xéewal wala ay julli ma salaamin ànd ak ay mucc sàkku naa xéewal yi ak mucc yi jëme ko ci kan lil Mustafa jëme ko ci kuñ tànn ki alayhi salaatu wasalaam te mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam bil aali na nga ca boole waa këram wa sahbi ak i sahabaam maa ngi sàkku nag julli googu ak xéewal googu ci kan laa koy sàkku mi ne laay tukkee ci yàlla assalaam kadib musalaakoon yàlla mi nga xam ne ab musalaakoon la maa ngi sàkku ci moom xéewal yi ak mucc googu mu jëme ko ci yonent bi alayhi salatu salaam na mu defoon ci bu njëkk rek julli sant yàlla bu baax walbati ko julli ci yonent bi toujours waxtu wu nekk noonu lay ubbee ay mbiram ndax yonent bi alayhi salatu salaam def la defoon wasilatoom ci diggante mu boroomam mu tekki ne xafistana yaa man lahu kulliyati min al aadi wal ada wal firiyati xafistana wattu nga nu nag yaa man yow yàlla mi nga xam ne lahu ñeel na ko kulliyati sama lépp yow mi nga xam ne sama lépp ngi ci say loxo sama jëmm ak sama waa kër ak sama njaboot lépp ngi ci say loxo sama tey ak sama ëllëg lépp ngi ci say loxo samay bëgg-bëgg lépp ngi say loxo sama ragal lépp yaa ma ca mën a musal kon nag yow yaay ki nga xam ne ki yaa ma wattu yaa wattu sama lépp yaa ko wattu nag minal ahaad yi ci ci ay noon ak noonale musal nga ma ca noon ya musal nga ma it ci ma noonoo kenn wal asa musal nga ma ci lorit zahir ak baatin musal nga ci it képp koo xam ne kii aju na ci man taaju ga di dëggu ci moom sa diggante sa diggante ga moom musal nga may ci ay dóor mu wal firiyat yi ak i dóor musal nga ma ci dóor masalan ni ma toppee yonent bi ak ni ma toppee sunnaam ak ni ma selal sama digganteeg yow awma ci sikki sàkka ndax waxal nga ma sa bopp ne ma gërëm nga ma te amoo sikki sàkka ci sama digganteeg ni ma topp yonent bi ak yonent bi amul sama sikki sàkka ci sama digganteeg moom kon musal nga ma ci duur képp koo xam ne ki topp na ma te sellalit musal nga ko noona na nga ma musale ciy duur musale nga ne ko noona kooko ma topp te topp te dëggal mu tekkee de man nanta bil azmati min kulli darar wa bin najaati min balain wa xarar man nanta xéewale nga xéewale nga ma xéewale nga it képp koo xam ne ki aju na ci man ci loo xéewale bil ismati ci kaaraange aar nga ma ci seytaane aar nga it képp koo xam ne ki ànd naa ak man ci kaw jëfandikoo sama ndigal bàyyi sama tere aar nga ko it ci seytaane aar nga ko it min kulli dararin ci lépp luy lore te it xéewale nga ma it ci mucc wa bin najaati wa xéewale nga ma wa mënanta xéewale nga ma bin najaati ci mucc musal nga ma min balaayin ci lépp loo xam ne li balaawu la balaawu nag bokkut ak nattu yi sunu borom yi nga xam ne daf koy nattoo gaa yu baax yi ngir na leen yéegee balaawu moom yàlla na ci yàlla musal mooy musiba moo xam ne day wàcc ci nit ki ngir mu nekk tàmbalikaayu mbugaluk alaxira ndax nit ku gëm yàlla te nangu koo topp lépp lu ko dikkal ci ay nattu daf koy sellal di ko musal ci nattu yu ëllëg waaye nit koo xam ne ki gëmul yàlla sëllu topp ko lépp lu ko dikkal nag ci ay musiba na xam ne loola tàmbalikaay mbugaluk ëllëg la mu ne ko nag musal nga ma ci loola min min balaayin ci bépp musiba wax xarar ak jëpp lépp lu ñuroo fi ay wor moo tax mu ne duwaa istajabta bil masarra bila muaadatin wala madarra istajabta wuyu nga duwaa iya sama ñaan duwaa iya sama ñaan bil masarrati ci mbégte mu ne ko li ma la ñaanoon ci xasida gu jëkk ga lépp nga defal ma ko ci aynu raxmati bégal nga ma mbégte moo xam ne mënu ma laa misaal mbégte ma ndax la ma la ñaanoon na ma la ko ñaanoon noonu ko ko ci defere te it boole woo ci ak noonoo bilaa muaadatin ci lu dug noonoo wala madara du caagin it ay lor kon nag lakkal miyaahu wa lakkal baraaya mu te dafa ko wax ne lakkal lakkal waraa wali yaqutta xayrahum wali siwaa nahwiya suqta bayrahum kon nag yow bindeef yi yow sun borom lakka ñeel na la alwaraam mboolem bindeef yépp ñi ma àndal ñëpp ci biir bindeef yi lañ mokk bokk te yaa leen yilifaale ñu ngi yilifi bindeef yi rawaate nag ñi nga xam ne nangu ñaa topp ndax man yaa ma yilif ku ànd ak man yaa ko yilif ndax ànd gi ñu ànd ak man loolu li muy tegtal mooy nangu nañ nga yilif leen rek moo tax nga ànd ak man moo tax ñoo nangoo ànd ak man kon lakkal waraa lakka ñeel na la waraa bindeef yi te it wa xutta wamman nga lii ñeel ma xayrahum mboolem seenu yiw lépp lu baax ci bindeef yi lépp ñotti nga ko mu wut si ma te it wa suqta wammat nga li siwaaya li siwaa nax wi mu jëm ci keneen ku dul man loo wamman mu jëm ci keneen ku man bayrahum seen lor lori bindeef yépp dàq nga ko mu jëm ci keneen ku dul man li bindeef yi ëmb ci lor mépp mbindeef muy lore dàq nga ko mu jëm ci keneen ku dul man lépp lu bindeef ëmb ci lor it dàq nga ko mu jëm ci keneen ku dul man kon de yow yàlla lakkati it dunia wa tilkal uxra wa kuntali waliya sunta zuxra lakka ñeel na la ti it dunia jële adduna te it yaa moomaale wa tilkal uxra ak joo jële alaxira yaa moom adduna yow sunu borom yaa moom alaxira itam maa ngi lay ñaan ci sag baax xéewali adduna yëpp nga defal ma ko ci ndoxam añun raxmati xéewali alaxira yëpp nga defal ma ko ci ndoxam añun raxmati te it wa kunta nekk nga liiñal ma te it maanaam mii naloon nga ma lépp lu ma la laaj lëj nekk sax ayun raxmati lu ma la masaa laaj danga moo koy jox kon nag xam naa ne loola nga ma defal ba tey ba jox ma li ma la laajoon lépp nga jox ma ko ci ndoxam ay raxmati moo tax ba wasun taw ñoŋal nga liiñeel ma zuxra ndaxañ ceef ndaxañ ceef nag mooy li mag ñi wax requise requise mag ñi dañ daal di jël seen alal denc ko fi barab bañ ko wax kenn ku dul ka nga xam ne kii moom lañ gën a fokk seenu njaboot sunu borom it ndaxañ ceefam li nga xam ne mooy njëriñul adduna ak njëriñul àllaaxira lépp loolu mooy ndaxañ téefam li nga xam ne moom la bindeef di mën a jëriñu ci moom ak xéewal yi nga xam ne yi moom la doon terale yonent yi rawante ne xéewal gi mu terale yonent bi alayhi salatu salaam ci ay secretam lépp xéewal yooyee la Sëriñ Tuubaa wax ne ñoŋal nga ndaxañ téef loolee lépp jox ma ko maanaam wali qaada sirran gaaba an xayrihil mux yi ca muqaddimatul am daax suñ borom ñoŋal na ay mbootam ñoŋalin woo xam ne musu ko woon kenn mboot yu musu woon kenn man war na ma ko te jagle na ma mboot yooyu ma sañ caa jëfandiku kon loolu la junj fii ci aynu raxmati ba tey mu tekki ne ajabtani bi bu serin laa tax faa xalayka yaa man juttali bi lax faa ajabtani wuyu nga ma bi bu serin caay mbégte yoo xam ne laa tax faa du nëbb mukk xalayka ci yow jox nga ma mbégte yoo xam ne yow rek yaay ki ko xam te ku dul yow mënu koo xam nag yaa man yow yàlla mi nga xam ne jutta woo man nga liñeel ma bil ax faa te xéewal yi nga xam ne nag da nga koo nëbb kenn du ko xam lu dul alaxira ajina sax suñ ca demee dana ci am yoo xam ne yi sama diggante yow rek lay nekk waaye keneen du ko xam kon nag yow yàlla hadaytani hidayatan lastu udil lastu adil min baadiha lam yanhuni dahru mudil lam yanhuni dahra mudil hadaytani gindi nga ma hidayatan gindi wiin woo xam ne tax na ba lastu ut lastu adil du ma réerati mukk ni nga gindee woon yonant yu jëkk ya gindee ni muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekk imaamu rusul nekk xayrul bariyati noonee nga ma gindee ba ma nekk xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te it noonu nga ma gindee it ba dafa ma xéewal ci ay ñu raxmati gile ba képp koo xam ne kii naan na ci dana gindiku ci zahir ak ci baatin su fekkee am na ci pasteef képp koo ci xam ne kii naan na ci itam su amee pasteef duutu réer duutu réer layti moo tax mu ne la su udul du ma réerati min baadiha ci ginnaaw xéewal yi nga ma jox gindi gi ma gindi duutu ma réerati moo tax nag ba lam yan xuni jubluwuma addahara diiru jamono mu dillun kenn kuy réer wala kenn kuy réerle maanaam koo xam ne kii dana réeral kenn duutu ànd ak man mu tekki ne wattantani yaa xafisi fii tuuba fal takfiha surura wal xutuuba wattantani dëkkal nga ma yaa ma dëkkal wala dëkkal nga ma yaa xaafisi yow yàlla mi nga xam ne yaay aji wat sama yaa ma wattu foo ma dëkkal fii Touba ci Touba yaa ma dëkkal Touba te it yaa may wattu ci biir Touba kon day fal takfiha na nga tegul dëkk ba bu ñuy wax Touba assurura mboolem xeeti ay yi ak xeeti musiba bi wala xutuba ak mboolem xeeti mbamba yi lépp luy jaaxal nit lu koy tiital lu koy jàqal lu koy ragalloo lu koy metti lu mu mën doon na nga ko dàq ba bu mu nekk ci biir dëkk bi képp ku nekk ci biir dëkk bi it bu mu gis loola yaakaar naa ne loolu koy waa dëkk bi teg nañ ci seen bët kon xutta xutha anil wabai xutha anil wabai wal afaati daara ibadatin bilal kifaati xutha maa ngi lay ñaan nga peek ko moom dëkk bi na nga ko peek xanil wabai walif ay mbas mbas yu metti yi nga xam ne day faagaagal ay nit na nga ma na nga ma na nga na nga ma ci musalal dëkk bi wal afaati na nga ko musalal ci ay gàkk na nga ko musal ci gàkk ba mu nekk dëkk bu neex a jaamoo yàlla nekk dëkk boo xam ne bii bu sell la itam mun na nga ko defit daara xibaadati muy kërub jaamuwaayu yàlla bi la ci fari ci lu gestu képp ku fi nekk nay jaamu bi yàlla boo xam ne yàlla rek lay nangoo jaamu bu mu gestu ci mbiram kenn ku dul yàlla lu muy wut na koy wut ci yàlla lu muy dàq na koy dàq ci yàlla waaye bu mu ko wut feneen bu mu ko dàq feneen kon de dahaaka abduka xadimu abdika murtajiyan naylal munaa min indika dahaaka woonal nag abduka sa jaam bi ñuy wax xaadimu rasulullah te it xadimu abdika mooy sa jaam bi ñuy wax xaadimu rasulullah yi mooy liggéeykatu yonent bi alayhi salatu salaam abduka mooy sa jaam bi ñuy wax muhammadu bamba xaadimu rasulullah yi xadimu abdika mooy sa jaam bi nga xam ne mooy liggéeyal sa ngeen ji mi def sa sa jaam bi ñuy wax yonent bi alayhi salatu salaam te it mi ngi lay woo nag murtajeen di aj yaakaar nay leen mun a amul mébét min hindika boo xam ne ki jóge na fi yow kon nag habli xadimi abdika almustafaay muraadahu bi iyaalahun taay fépp maye li xadimi abdika ñeel sa liggéeykatu jaam bi ñuy wax yonent bi almustafaay ka dafa ñu ramuloo na nga ko may muraadahu ak na meelam bi ci daraja yonent bi te it insaan yi na nga jëriñ si yàlloo ak njaboolam ak njabootam kon bi ci moom na nga may sëñ tubaa bëggeelam na nga may ja ñi topp sëñ tubaa yi na nga leen may seen bëgg ci seen diggante seen tubaa foofu it fi la xasida gi nga xam ne gii mooy bëgg ñaareel gi foofu la jeexe mooy wahab mu tëj ko nag wahab loo fi kulli xarfin minha hudan hamdan wa shukran yurdika abadan wa yudxilu surora alayhi alayhi salatu wasalaam amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin